jëf mbokk yi safo télévision Futur Média dalee nag jàmm ci jotaayu xibaar yi li ci gën a fës te ñu ne mu ko jukki xam ngeen ne ni ki ëllëg daañu door li nga xam ne ah, moom moo di ah, forum mondial du l'eau ñaar fukki fan ak benn jàpp ñaar fukki fan ak juróom-benn file ci ndakaaru la ñu koy amalee tax na itam ñenn ci ñoo xamante ni seen xam-xam ah, màcc na ci wàll wi jamono yi nag ñu ngi wax di addu xool nees def pexe ba rekk jafe-jafe yi nga xam ne nag ñu ngi ko ci jànkonteel ñu daal di koy saafara bokk na ci ndox mu bon mi daal di koy ceggaat ba rek askan wi mënees koo jëfandikoo ñu jàpp ne nag ñi nga xam ne ñoom ñoo di ODD e ODD yi dañoo rek daal di tëlee mu di objectif de développement durable tax na itam association panafricaine des acteurs de l'assainissement amaloon aw ndaje diwaan bu Mbour ñoom ñooñee la ñuy sàkku euh, mu di rek ñu gën a am ak caytu ci wàll wi te itam euh, forum boobe nag from de l'assainissement la ñu ko waroon a euh, dippee ndox mi itam tax na ñu def aw taxaw seetlu rédaction bu télévision Futur Média ci robinet yi nga xam ne dañuy faral di nekk ci mbedd mi xam nga ne foofee xaw nañoo néew waaye fu ci mel ni nag diwaan bu usine benn tali foofee nag la ca gën a fës te ñu ràññeekoo ci wàllu robinet mbedd bokk na ci euh, robinet laasana suñu ay ndaw euh, doxantu nañ fa ngir amal fa aw reportage wu yaa daañu leen ko digtal euh, ci jotaayu xibaar yi la itam daañu waxtaanee film documentaire wi nga xam ne nag Alioune Badara Dioum daal di koy xaatim daal di koy duppee li nga xam ne moom moo di je vois le monde tombe moom moom itam mi ngi wax ci jafe-jafe yi nga xam ne nag tund wi dañu koy daal di dund nees mën a def guuta googee wax na ci lépp lu ñeel wàllu injustice ak itam li nga xam ne ah, moom moo di ah, guerre yi nga xam ne nag dañuy faral di am ci àdduna wërngal këpp Ibou Diouf ah, séq na ak moom waxtaan moom moomee itam di aw bindkat mbokk yi lu yees benn simili dinaa dikk ñu faram mbokk yi jërë ngeen jëf rafet lu baax a baax ànd wi ak télévision Futur Média xibaar ñu door ko nga xam ne nag noonee la ñu ko junjee woon xam ngeen ne ni ki ëllëg forum mondial de l'eau daana door fii ci ndakaaru jëm ñaar fukki fan ak juróom benn ci weer wi nga xam ne nag moom la ñu nekk ñenn ci ñoo xamante ni seen xam-xam màcc na jëm ci wàll wi itam ñu ngi amal waxtaan xool nees mën a def ba lu bëri loo xamante ni ay rëq-rëq la ci wàll wi ñu daal di koy joyanti bokk na ci ODD yi nga xam ne itam jamono yi dañoo xaw a tële ci wàllu assainissement ba tax itam jamono yi yenn ci ay ndox yoo xamante ni dañoo ñàkk ceet def kéem kàttan ba askan wi mënees koo jëfandikoo bokk na euh, ci bëgg-bëggu association panafricaine des acteurs de l'assainissement Abdourahmane Diallo Mamadou Gueye ñoo teewoo ndaje wi nga xam ne nag ñu ko doon amal diwaan bu Mbour ay ndoxu foos ak li muy àndal yu ñuy sotti fu ne ñàkkum woon ak ndox yu yàqu yi nga xam ni kenn mënu ko defaraat ay jafe-jafe la yi nga xam ni kuréel gii ñu duppee association panafricaine des acteurs de la l'assainissement nemmeeku nañ ko te ñu jàpp ni mbir mi waruta demee noonu nit ki dafay dem ginnaaw kër ci àll du dem ci duus loolu bu yàggee bu woowee ngelaw li mën ko yóbbu ba dugalaat ko ci kër yi ku ko noyyi ku ne mën nga caa am jafe-jafe bu fekkee ni itam dañoo jël foos bi au lieu ñu yóbbu ko fañ ko war a tuur tuuruñu ko fa ñu dem tuur ko ci àll bi noonu bu demee ba waw itam ku ko noyyi mën na am ay jafe-jafe. soxna yi am nañu rôle bu am solo bi nga xam ne war nañ ko jouer ci lu jëm ci wàllum set teewul néew nañu lool ci métier bi nga xam ne dafa jëm ci wàllum ngàcc foos ak xeet gi ni mel. et c'est les femmes peuvent intégrer et tirer ñi seen xam-xam màcc ci wàllum set ak xeet gi ni mel jàpp ni app bi nga xam ni tëral nañ ko ngir ñu mën a atteindre ODD yi ci wàllum cet ci atum 2030 réew yu bëri yu nekk ci Afrique duñ ko matal. état yuy def effort yu bëri loolu moo tax man sama xel bu gàtt forum bi ñuy wax forum mondial de l'eau dañ ko waroon wax forum mondial de l'assainissement parce que Afrique tey euh, soxlaam bu gën jàmp affaire assainissement la bu ñu ko waxoon forum mondial de l'assainissement xëy na ñi fi ñëw te nga xam ne ñoo mën a jàppale Afrique nañ ne ñun kat nañu gën dugal suñu xaalis ci affaire assainissement. kuréel gii ñu duppee association panafricaine des acteurs de l'assainissement amal ab assemblée générale kuréel googu bokk na tamit ci forum de Dakar bi nga xam ne dañ ko jagleel wàllum ndox association bi ñaar fukk ak ñaari réew Afrique ñoo ci bokk. mbokk yi ñu des ba tey ci li nga xam ne nag moom moo di euh, ndox mi bi yoon dañuy wax li nga xam ne nag moom moo di euh, lac Tanema lac boobee nag ma nga nekk ca dig-digal bu euh, Morolan Noto Jandeer ak itam Kër Moussa ca région bu Thiès waaye lu muyul dég boobee nag dina nax saay tax na ñenn ci ñoo xamante ni seen xam màcc na ci wàll wi wala boo ko ñu jegee tund woowee nag di amali waxtaan xool nees mën a def ba rek loolee di dég boobee nag ñu defaat kéem kàttan ba ndox ba nga xam ne nag ma nga fa doon Baldé mu daal di koy wéy ndax itam ku nekk xam na ne am na njëriñ lool ci lu mel ni wàllu napp gi ak itam wàllu mbay mi Cheikh Anta Diop Cheikh Cheikh Anta ak Seylatir diwaan bu Thiès dex gu mag gu ñuy duppee lac Tadma amul tur lool daanaka bu ñuy xool ci àllu kànj la jóge topp xulub bi jaar fu mel ni mbaawaan kër Abdou Ndoye ba caay tey jii lac bi nga xamante ne daa feesoon dell ak ndox ñu daan ci napp ak bay daanaka dem na ba dee Diéry Gaye nekk conseil national de concertation des ruraux. ñu gis ne la mu daan am ci njariñ ci d'abord bari ndox lakk loolu lañ ko xamee mu bari ndox. Euh, di indi ay njariñ mooy maanaam li ñuy wax tubaab di wax faune ak flore maanaam am ay garab ay meññeen am jën ak lépp luy dund ci ndox yoo xamante ni ki amoon na doomu aadama njariñ mu am fi am aussi loo xamante ni ki doomu adama moo ko def parce que borom xam-xam nee nañu garab bokk na ci li nga xam ne daal dina dimbali taw pour taw bari fa bon loolu nag bu fekkee ne dafa am aussi ay doomu aadama yoo xamante ni ñoom dañ koy gor pour seen i soxla moo xam dañ koy jëfandikoo daal loolu yëpp tax na ba li amoon ci ay garab ak euh, càkkeef ci lac bi loolu yëpp wàññeeku. soxna sii di Maguette Ndiaye nee na ñu ngi ciy sàkku nag ndimbal ak nguur gi rawatina ndaw ñi nga xamante ni jóg nañu ngir taxawaat fexe ba dekkeel dex gi. ñu jàppale leen ci. nekk na benn site bu nga xamante ne am na importance capital ci ñii di baykat yi ñii di sàmmkat yi yu nga xamante ne waruñu ko négliger. lépp lu mu laaj ci ay effort ñu def ko mais lii nag boo ko xoolee di nga xam ni am na fu nga xamante ne organisation yi foofu la ñu mën a yem li ci des nguur moo ko mën a taxawee te nguur bu ko taxawee lii di Sénégal émergent lii dina ci nekk jéego bu am solo. téeméeri ndaw ak fanweer jóge ci biir réew mi ba ci sous région bi ñoom ñëpp ñu ngi fii ci lac Tanba ci forum mondial de l'eau bi am ci réew mi nee nañu daañu def seen kéemtalaay kàttan ndox mi ñëw di walwali askan wi di ci mën a jariñoo jërëjëf Cheikh Anta dañuy des ba tey ci li nga xam ne nag moom moo di ah, ndox mi bi la yoon dañuy waxtaanee robine mbedd yi nga xam ne nag bu njëkk daan gis fu nekk ah, ci ah, li nga xam ne moom moo di quartier yi jamono yi le naam ñu ci bëri daal nañuy nax saay waaye mu ngi wéy di am ba tey fu ci mel ni usine benn tali foofee nag robinet bëgg fa gën a fës te rek askan wi gën koo xam bokk na ci robinet laasana boobaak léegi itam muy wéy rek di séddale ndox mi wala boog ka fa li nga xam ne nag moom moo di ndox Aminata Mbaare Sow Modou Diop ñoom ñoo fa doxantu woon ñu seetaan reportage. ñu ngi fii ci usine benn tali doon benn quartier ci biir Ndakaaru fii nag boo fi accès robinet public yi daan leen seen fu ne. nit ñi rek dëkkandoo yi rek yenn saa ñooy ñëw di ñëw di war si waaw bu ñu fekkee si robinet tëj na ñu ñëw root fii ak xale góor tamit ñi di liggéey wàcc par ngoon waaw ñoom ñëw liggéey si ñëw root si ñoom. pour mu ndox bi waaw pour ñu yéegal ko si kaw day faible souvent dañ koy def mais day feewul ndox bi du gaaw ni nga ko bëggee ni nga ko bëgg ni nga ko bëggee daal doo ko ni amee. bëri ko man ki laa jënd benn broullon par broullon bi nag waaw. robinet Lansana bokk a siiw ci gox bëri na histoire. robinet bi ñun dañuy juddu fekk ko fi ñun ba ñu nekk xale ci lan daan sangoo ñun temps naar yi ñoo fi nekkoon booy rappelé wu yàgg na nag naar yi. mooy naar yi punkal yooyu daan yor xànd yi ñoo daan root fii mais moom këram kër gi ak rëbne bi daanaka benn la parce que fii la daan teg pliyaanam moom léegi nag borom tuur la daal borom tur la moom wax dëgg yàlla fii nag bu dee gox gi dëkk nañ fii ba pare tamit bëri na yu fi soppeeku waaye teewul robinet public yi moom ba léegi am na ñu jëfandikoo am na koy jëfandikoo. bidon bidon cinquante la bidon. waaw jour moom dinaa root wala ñaar. waaw sama amul ndox de. Mm-hmm. <laughs> waaw day kër yi bëri fii nii kër yi bëri amul amul na robinet mais boroom kër gi day jaay. mais kër gi ñëpp mun nu jóg même heure pour di di rotandoo c'est impossible dina am léegi ñoo xam ne bu ñu yàqamtee wala guddi gi la ñuy waaj fekk seen borom kër gi tëj euh, robinet bi ñoom dañuy obligé ñëw fii rot si. muy benn tali wala ci yeneen gox ci biir ndakaaru ñu jàpp ne robinet léegi am na ñu koy jëfandikoo lii nag di wane jafe-jafe yi am ci wàllu ndox fii ci capitale bu ndakaaru Aminata Mbaare Sow ci capital bi ba tey la ñuy desandi des ba tey ci li nga xam ne nag euh, ñooñu euh, Festio amal nañu ko di aw jataay woo xamante ni waxtaane nañ ci bu baax baax wàll wi yenn ci ñoo xamante ni itam ñu ngi dundu jafe-jafe ci wàllu ndox ñu xool euh, nees mën a def ba daal di ci indi ay saafara waxtaan wu ni mel ñoo ngi ko amalee ca faculté des faculté bu droit bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru Ibou Diouf ci aw yaatal. bokkoon na ci li ñu mébét boole ay kàngam ay ñoo xam ne seen xam-xam dafa màcc jëm ci ni ñuy saytoo wallu ndox boole ci tamit ñi nga xamante ne ñu ngi ci université yi luñ ci jublu mooy waxtaan ci li nga xamante ne noonee la kër yi di ANVS ak OMVG taxawe ci liy boole askan wi ci wàllu ndox. forum du l'eau yi gën a bari état yi ñoom ñoo dajee seen biir di waxtaan mais société civile bi ñu muy engagé ni surtout lu ñuy wax pré-forum c'est-à-dire mooy balaa forum bi ñëw ñu regrouper acteurs yi waxtaan ak ñoom sensibiliser leen informer leen ñoom frère Guissé loolu la ñu def ay organisme mel ni OMVG loolu moo tax ñu jóg woo askan bi ñu ñëw teewe bi la xalaat loolu tamit mën na tax ñu xam ni nga xamante ne noonu la ñu jële dogal yi lépp ngir saytu ndox mi ni mu waree. ñu ne non il faut ñu alerte il faut ñu rapprocher forum bi population bi fexe ba nit ñi xam ne li ñuy waxtaanee seen njëriñ la suñu njëriñ la ñun ñëpp nañ ko yëg ku ci nekk bàyyi sa xel boo amee loo siy laaj nga fexe ba yegg fa laajte ko yow su boobaa yow di nga bokk si ñi xam ne mbir mi soxal na leen te indi nañ solution ci situation bi Sénégal nag fii ci Afrique soowu jant ñu xam place bi nga xamante ne am na ko rek ci lépp luy boole réew yi rawatina ci ni ñuy saytoo kër yi di OMVS ak MVG. Sénégal am lu mu mën a jaay àdduna bi tey mooy hydrodiplomatie parce que Sénégal góor góorgóorlu na ba fexe réew yi ko wër yëpp te muy partagé ak ñoom dex mu mën a déggook ñoom ñu mën a tabax loo xam ni tey àdduna bi yëpp ku ko ci ku ko gis daf koy naw day naw Sénégal ci lool donc suñu toogee tey jël thème bi développement lu am solo la. ci activités yi ñuy amal nag ci forum mondial de l'eau Frères Guissé ñooy fësal seeni taxawaay ñoom li ñu bëgg rek mooy fexe bi askan wi xam ni nga xamante ne noonee la kilifa yi di jël dogal ngir lépp lu aju ci wàllu ndox ñu amal ko ci anam yu mu cay Ibou Diouf xam nga ne euh, ndox doon na lu am solo ci wàllu mbay moo xam bu mu ci mënti doon tax na jëwriñ ji nga xam ne nag moom lañu ñu dénk wàllu euh, jënd ak njaay moom Aminata Assome jaata doxantu woon euh, ca bët gànnaar bu réew bu Sénégal gisee ñi nga xam ne itam ñoom ñooy yëngu ci wàll wi seeni i jafe-jafe mu mel ni nag dalul ci noppu tax bi la mu xamle mu di dina ko eggee njiit bu réew bu Sénégal tey itam ay saafara dina ci daal di juddu diwaan bu Ndar Géej seeni Diop. ministre du commerce Aminata Assome Diatta daal di amal tournée boo xamante ni mi ngi koy amal ci région bu Saint-Louis koy jeexale nag ci département bu saint dikkee nee na lu jëm ci wàllu filière xamante ni dañ am ay jafe jëm ci wàllu tomaate bi ceeb bi ak oignon bi ren jile état bi dañ ci béy waaram ba loolee du a ne. objectif mooy ren fexe ba jafe yi nga xamante ne béykat yi jànkonteel nañ ko daaw ñu bañ ko jànkonteel ren bu ko defee ñun ñëpp ñu ànd rek régler problème bi nga xamante ne moom la filière yi di dund bu nekk luy jural njëriñ baykat bi waaye tamit état du Sénégal. ci kàddoom nag état bi dina gën a ñaax ñi nga xamante ni ñooy commerçant yi ngir nag ñu mën a ñëw ci wàllu gi daal di jënd lu jëm ci wàllu produit yi nga xamante ni béykat yi daal nañ koy am. bu ko defee nag ñu mun a inciter commerçant yooyu ñu mun a ñëw jënd ci euh, production ndax am na ñu nekk di jënd mais am na ñoo xamante ne jëndaguñu donc day am solo ñu waxtaan ak ñoom xam lu leen téye. ci wàllu engrais bi nag at bu ne béykat yi dañuy jooy nii dañ koy yéex a jot. ministre bi nag daal di jël ay engagement ni ren jëlee loolee du am ndaxte am na ay pexe yoo xamante ni lal nañ ko. ba ñu am euh, engrais bu doy incha allah ndax jafe-jafe jot ci engrais bi dara waralu ko lu dul jafe-jafe yi nekk mbiti mu réew rek donc boo koy importer jafe-jafe yooyu nekk mbiti mu réew nu muy dalee ci ceeb bi ak yeneen produit noonu la dalee ci engrais bi waaye incha allah ak mesures yi nga xamante ne président de la république digal na ko ba ñu jël ko euh, Sénégal incha allah ren du ñu am jafe tournée bi ñu ngi koy jeexale ci département bu Saint-Louis ca raw bi nga xamante ni ministre bi fa jeexalee tournée am nee na nag yi na seen i xel dal ndaxte ren jëlee état bi dañ leen gën a taxawu. Ousseynou diwaan bu podoor foofee itam soxna yi nga xam ne nag ñoom ñoo fa nekk bokk na rek ci ñu daal di tëggaat doxalinu ko yenn ci ay soxna lu ni mel la ñuy euh, sàkku soxna yooyu nag ñu ngi bootu ci benn Bokk Yaakaar ginnaaw aw ndaje itam boo xamante ni amaloon nañu ko abi baax moom mooy yoroon seen kàddu àdduna jëmale ci micro di sa monsieur le ministre monsieur le maire Cheikh Oumar Anne dafa am cadeau bu mu jox jigéen ñi. muy formation 450 femmes. formation développement transformation des produits locaux et puis aussi dina leen may ay matériel yu takku pour jigéen ñi mën a liggéey mën a mënal seen bopp. ak yeneen ak yeneen yoo xam ne bës bu boobaa bu boobaa ba ñu demee ba bés ba di ngeen gis yoo xam ne mosu leen koo gis. ndaxte ñun ñëpp xam nañu Cheikh Oumar Anne moom monsieur le ministre lépp loo xam ne day jëmale jigéen ñi kanam mi ngi ci kon boog bu ñëwee ba fii dañ ko war a wax nit ñi xam ne ñëwuñu rek pour feetu rek waaye dañoo ñëw tam pour liggéey dañoo ñëw nara liggéey ànd ak suñu ministre ànd ak suñu maire ànd ak suñuy jigéen ànd ak suñuy mbokk ak suñuy xarit ñu sargal suñu yaay sargal ñoo xam ne ñi ñoo doon liggéey démb balaa tey di ñëw liggéey démb ba tey ak ñi fi liggéey comme ni ko sama yaay Fatou Amine waxee ñi liggéey ba dem yàlla moom leen donc daal man li may def mooy lancer appel. tout les maires du département de podoor ñëpp ñu ngi leen di xaar na ngeen ñëw ngare e keewal ngare e ngeen sañse ngeen def li ngeen doon def ñu ñu ñu rafetal suñu bés bi bu soobee yàlla. Euh, mu mel nag euh, président bu conseil départemental bu Bakel moom Pathé si daal nay euh, daloo li nga xam ne moom moo di xabru bu premier almaami bu Bundu moom El Hadji Malick Sy Daouda Boucar moom moomee nag daal nañ koy daloo bu baax a baax nga xam ne itam moom moo yor kàdduk boobu les communautés àdduna jëmale ci micro Arouna Fall. bi njëkk ci Bundu muy El Hadji Malick Sy Daouda tamit ki nga xam ne moom moo sos. le premier état théocratique dina jafe nag ma de l' Afrique subsaharienne dina jafe ma tekki ko ci olof waaye ci misaal euh, nitu yàlla la woon boo xam ne giiru dundam daf ko xeex ngir yaatal islam ci réew mi ci sous région bi yaatal islam ca Mauritanie yaatal islam ca Gambie yaatal islam ca Mali ca Niger kon kooku boo jógee ngir defar ay mbiram jàpp naa ne yàlla dina ci def loxoom. boppam. mbokk yi junjoon naa leen ko bi ñu door yi la jotaayu xibaar bokk na ci euh, film documentaire bu euh, Alioune Badara jum nga xam ne itam dal nu koy fësal euh, di li nga xam ne moom moo di je vois le monde tombé moom moom itam wax na ci yenn cay rëq yoo xamante ni nag dañu koy nemmeeku ci àdduna wërngal këpp bokk na ci li nga xam ne moom moo di guerre bi ñàkkub yoonal ci yenn ci ay dëkk lu ni mel itam bëgg na rek ñu daal di koy joyanti wala bokk indi ci ay saafara ndaw loole itam di xaatim ci wàllu téere àdduna jëmale ci micro bu Diouf message bi ma bi ma wóolee mooy que ni déjà suñu réalisation je vois le monde boo gisee li xew ci àdduna bi tey démb nee nañ pandémie bi la tey guerre la suba xanaa day jeex ko kon tey jii mun naa ne jumuñu buñ ne je vois le buñ ne àdduna bi dina daanu man wala maa ngi gis àdduna bi di daanu. livre bi il y a nañ ko génne tey jii boo xoolee situation actuellement bi di nga comprendre que ni c'était du nekkul benn benn gisaane ni loo xam ne nii dañ ko doon xaar la te tey suñu message ci documentaire bi mooy def lu baax. ànd def lu baax tey jii bu ñu ko defee rek mun nañ mucc ci ay problème yu bëri ci àdduna bi. bëri fii entreprise yu mag yi gëmuñu genre projet yi projet yu gën a fën lañ koy nañ gëm je n'ai rien contre la musique ama dara lu may contre la la danse tout ça ay àlla mais activités yi nga xam ne quand parle d'éveil de conscience yi ñu war a ñëw. je pense que dañuy dañuy dañuy toog quoi dañu naan parce que amul audience te li ma doom wax sànq jeunesse bi mooy que ni du seen faute ñun la tamit bu dee bu ñu wootee lu amul fulla ñëpp ñëw bu ñu wootee lu am fulla kenn du ñëw kon duñ mës am ay nit yu ñuy jàppale si suñu ay projet jërëjëf Ibrahima mi tataan yooyu la kàddu mbokk yéen itam jër ngeen jëf waxtu yëkkati jotaay jot na léegi-léegi ak rédaction bu télévision Futur Média Léa Soukayna dina fi teew jukki leen xibaar yi euh, ci kàllaamay tubaab lu ma loolee tam ma jox leen daje ni ki ëllëg à partir de 6 h ci seen émission info du matin mu ñeel revue des euh, titres lu mooy loolee tam mooy leen des ak programme télévision Futur Média jaa ngeen jëf mbokk yi ñu fanaan jàmm